Nous Matin. le le pouvoir nga koy jël di ko nit ñi te contraire moral la morale. effectivement le pouvoir est c'est contraire à la morale c'est même juridique c'est contraire à la constitution parce que souvent le pouvoir de président de la république c'est un pouvoir qui a une finalité dédiée. dédié parce que vous êtes constitution dafa am esprit avec lettre parce que le président vous waat bu ko dama naan kattanam jëfam engagement yep yëpp daf koy jagleel intérêt réew mi ñu jox pouvoir donc lépp de def façon booy utiliser pouvoir bi rek dafa war a méngoo ak loolu. ak lu tax ñu jox exactement de manière permanente bu méngoo loolu rek def nga détournement de pouvoir te nag dafa sew si si lu bari lañ koy gisee mooy jël pouvoir bi au lieu nga def ko de manière objective nga jël di pour des intérêts politiques détourner le pouvoir nga jël pouvoir bi nommer sa xarit parce que sa xarit la wala da ngeen bokk parti liggéey bi mënu ko jubul détourner nga pouvoir yooyu yëpp loo foo jëlee pouvoir bi jariñoo ko ci beneen anam boo xam du anam intérêt au mi rek le nga pouvoir donc loolu en dehors du fait que c'est immoral maanaam jël pouvoir di ko dico ko di ko noote ay nit wala di ko utiliser non xam rafetul rafetul dafa illégal ah. même bu fekkee ne c'est pas un texte mais ça va de soi c'est-à-dire président pouvoir il doit l'utiliser uniquement dans l'intérêt général mais lorsqu'il si def leneen rek détourner le pouvoir mais euh, intérêt personnel ak que, euh, loo am yamale yi mbiri sa ni moo ni ñu bari ñi Dès que wax waxatuñu dëkk bi dafa tumuranke ci ñu taxaw di wax pour l'intérêt général Beaucoup de jëlee société civile sax moi lan bu ñu demee organisation société civile professionnalisée, professionnaliser nekk institution def am administration nga xamné da ngay wut ay programme parce que administration bi foog mu am ay personnel ay location da ngay wut ay programme pour am loko fayé am ño xamné dañu nek ci activité civile lool rek lañu def mu don pratiquement profession nga xamné buñu amé ay institutions ñu taxawal dañu positionné pour buñu né soxla nañu wa société civile ñu jëlé fofu jox leen ay position hmm. ngay des avantages financiers et matériels loolu moo yàq liggéey ay institutions ouais. parce que dañuy soxla ARMP ñu une société civile ñu euh, conseil économique social environnemental société civile une lay fragiliser HCCT c'est une société civile De les fragiliser absolument loolu liberté de ton place, ces institution parce que nous avons un jeu pernicieux entre pouvoir bailleur de fonds société civile ku nekk da nga soxla sa parce que pouvoir bi faut nous justifier que nous avons une société civile bu est contrôlée bailleurs de fonds yi bu ñuy wutee xaalis à l'étranger wala ñu am sen budget yi foog ñu am fuñ ko dépenser donc dañ koy jox wa société civile yenn ONG yi ñooñ tamit dañu am ay institution am ay administration am ay programme am ñoo xam loolu ñu vivre ñu utiliser loolu loolu mo mo ray combativité bi té loolu motax tay day am yu bari yu xew donc on se fait des illusions état de droit biñ koy tudd amuju ko c'est ça la réalité fokk ñu yeewu état de droit amuñu ko. mais amu fi lan moy état de droit la primauté de la loi kan mo fi meune ne fi, président bi fi nek ak ñi ko jiitu woon yi jël nañ loi tek ko sen kaw ken mënu ko fi wax. Ah. fi lu nek président moy am. lool moy situation réelle nañ jàpp ne amuñu état de droit dañu nax suñu bop parce que état de droit moy fo dem primauté de la loi. tegu ci kaw ñep dama lay jox exemple du très simple yo xamné day wone ni ñu salfaañe état de droit fi. parce que niveau responsabilité mon doy war bi Thierno Alassane Sall démissionné le 2 mai nous remplaçons le 2 mai par le premier ministre le 2 mai le premier ministre signé contrat Total Nous avons fait mu wax lu la décret wala loi buñ ko jëlé bala muy mëna am bala appliquer ñu au journal officiel ñu décision bi ñu le 2 mai xaajul journal officiel nous ngi peut-être deux semaines après passation de service amul premier ministre signé ci kanamu président de la république mu cautionné président de la République approuvé contrat bi premier signé té bi amuloon pouvoir ba mu signé à ce niveau donc loolu dafa dafa fees si yu bëri président fi nek woné nak état de droit ce n'est pas son problème amna na beneen problème état de droit fi Ngom kéta biñ ko fi dàq mandat am jéxul violé wuñu état de droit ak mën nañ joxé exemple yu dul jeex donc citoyen nañuy yéwu l'état de droit reste à construire dans notre pays ak yenen même république bi wax république bi tur tur la rek république amu fi bu c'est très important élection bi yeef tournant bi ñu jublu bu ñu nañu yeewu amuñu état de droit amuñu république nous ñu suñu bopp on a une un système avec on a des symboles euh, des symboles et un, un, un, un fonctionnement avec certaines une certaine dynamique démocratique dans sous certains aspects parce que démocratie sax veut ñu wax matul suñu réew ah, lu tax démocratie matul parce que démocratie fii dañ ko yemale rek ci élection ci élection. <laughs> démocratie dafa dépassé loolu bu baax démocratie le permanent la donne a de ci dund démocratie sur le plan politique sur le plan social sur le plan économique sur le plan même culturel dans les gis nga situation Casamance duñ ci wax dañ à la base le mépris culturel système vrai système démocratique composant nation bi yëpp nation sur le plan économique yow fi dama nga procès temps yi démocratie économique bu une mhm. situation am parce que la démocratie on applique la règle de la concurrence mais le lu fi xew régime bu ñew indi ay hommes d'affaires dans des conditions scandaleuses jox leen ay dans des conditions scandaleuses c'est un cas hein? a un cas un vol immobilier ak un cas yu dul jeex sur des marchés les plus importants y a un cas aussi hein? aussi scandaleux c'est le plus grand marché public c'est le port de Sendou kan lañ ko jox ñu ko jox ko dañu wax biri wax dañ koy dañ wax mu leer jaay la jaay nga projet bu day ni port minéralier amu expérience xamul sax loolu mais c'est parce que démocratie que amu fi dafa am ñu mu te xam nañ leen ñom xam nañ ñun xam nañ xam nañ ñu projet yu mel démocratie que amu fi démocratie sociale kuy dem fi dem administration dem yow sa bu démocratie parce que bo amone da ngay assurance dans l'administration, une administration républicaine ñu defal li a am ben jafé jafé administration fa wala téléphonel problème du régler wala wala wala. Euh, euh, euh, problème régler on a tout à construire Pour qu'on ne se leurre pas c'est pas parce que a def une élection Civilisée civilisés, ñu ne un que les la dévolution civilisée du pouvoir n'est pas le seul signe d'une démocratie qui fonctionne C'est un aspect bu tout uh-huh. donc muy état de droit la démocratie c'est un problème de système il faut tourner la page administration républicaine dafa nekk à équidistance Madame il far mais bon, on ñi nekk administration bi c'est des militants politiques de haut niveau au contraire on les encourage même à faire de la politique. ou bien on les aime mais là, nag loolu nak loolu nag nañu waxante ci Macky Sall rek. Uh-huh. parce que avant Macky Sall buñ la nommé pour nga maintenir sa poste da ngay dem défi politique. Uh-huh. Bo bëggee poste da ngay dem défi politique. mais kooku bo défi politique yow ngay militant APR ñu jox la une administration Té ñepp wat ñëw sa administration bi fa liggéey koy jiital.

nga war ko ci xarañam ci liggéey bi ci njubam ci liggéey bi nga teg jël teg ko foofu encore une fois détournement de pouvoir parce qu'il dit ku perte ma dàq la pouvoir présidentiel am pouvoir nomination ak révocation il l'utilise dans ses intérêts politiques donc détournement de pouvoir encore moom l'a doon wax sang. ku perte ma dàq ça signifie quoi qui am tuuti conscience professionnelle bañ bàyyi place am di dem politique tout le temps bu pertee kooku dañ koy dàq qui baille place à dem di politique tout le temps pour gagner ñu téye Un fa exemple violation état de droit détournement de pouvoir une violation état de droit Yon Monet une inspection générale d'état doit reproduire rapport OFNAC OFNAC dafa reproduire rapport violation état de droit parce que publier loi bi un euh, publier rapport de femme finalité c'est l'information de l'opinion c'est un droit c'est-à-dire institution yi dañ du di sur le budget suñu alal la loi leur fait obligation on état de droit c'est la primauté de la loi mais rapport à l'autre, parce que président va aussi, parce que nous, avons des coutumes républicaines pour wax coutume républicaine Moi, ñu jéem a respecté mooy publié, il faut publier nous ñu président que nous ko jébbal jox ko mais bu si sawarul nous nañu nañu respecté état de droit parce que droit bi loi bi ñom la ko sas yi fi nek muy inspection générale d'état fu nek ils doivent faire leur devoir l'état bi loi bi mo lay sas lolu sen ndodd la la la lolu mu neex président mu nakri président jotewul ak président président bu leen bëggul recevoir pour ñu présenter rapport yi nañu jël seen responsabilité respecter loi bi respecter loi bi mo ëpp doolé doole def lu neex président donc as situation bi xam nga bu ñu demee ba niveau institutionnel mel noonu Respecter une fois loi fu comment on peut parler de, l'état de droit On nga une histoire avec les garants quelque part de l'état de droit parce que inspection d'état buy vérifier day dem contrôler sur la base de la loi Monsieur le président bi fi nekk yoonam nekkul ci état de droit et ce n'est pas un démocrate on a toutes les explications man loolu lu wér la te fee yi wax a. moo koy wane wane aussi benn cawarte pour respecter loolu et c'est très grave Lolo indi ñu dund yépp ma yaama neex def lu la neex leneen li koy wane détournement encore de pouvoir nga jël sa militant teg ko mu mooy directeur soleil jël sa militant muy directeur RTS la série sur le gâteau nga jël koo xam ne ñëpp dañu xam jébbaloom ci pouvoir yi fi nekk muy Abdou Diouf muy Abdoulaye wat ak Macky bi nga jël def ko président d'une institution de régulation Babacar Diagne je suis désolé moi j'ai rien contre Babacar Diagne mais amul n'est que dans le président d'une structure de régulation parce que lui n'a jamais fonctionné comme ça Donc, dafa mës a jébbalu ñu fi nekk tëdd lu neex pouvoir bi lay defar kooku naka la a équitable ah. donc disons, il yooyu yëpp lay Sénégalais ici, situation yi question fondamentale nous posez wu c'est le système c'est le faut pas bu ñu nax suñu bopp gis nga système

amul militant amul recommandation serigne bi amul dara dañu def cahier des charges voilà poste diw am na lañ ci laaj tel diplôme tel expérience tel jaar ngay Sénégal bu dëkk Sénégal wala Sénégal bu nek extérieur ñu def ko public ñu def ben appel public ñepp mëna a ñepp mëna mën mu am chaque année état bi sélectionner ben cabinet de chasseurs de tête par appel d'offres aussi ñu jël jébbal ko dossier

le président dans président militaire dama koy supporter supporter tout le monde. la ñu war a changer système. Il faut que foog renonciation du président Ben prérogative bu am solo son pouvoir de nomination à tous les postes civils et militaires Le président Nangoune Il a ko ba exiger du coup ko neex mu tabb. dañu def appel à candidature Moi, si ñuy génn ci appel à candidature il est obligé de choisir Sibir biir ñooñu loolu wàññi nga parce que président est mais pratiquement tout son temps avait le pouvoir de nomination le pouvoir pouvoir les président présidents, ak ni koy ñi koy nomination Et uh-huh. président le a liggéey da ngay tegeeku loolu da ngay am temps bu doy boo liggéey nous la ku nga dem ñu def ko le c'est pas un choix pouvoir président

xam nga booy àtte nit da nga koy àtte ci objectif uh-huh. réel ñun ñëpp xam nañ ne depuis que politique am ci réew mi politique yoonu am alal la yoonu am pouvoir la yoonu am ay prérogatives loolu ñëpp jàpp nañ ko ba ñun sax dañ ko nangul nit ñi ce qui est anormal société bi dafa war a changer mentalité bañ a nangul loolu nit ñi bañ a nangu ne dem pouvoir pour am alal la mais ñun def dañ ko nangu nangu nañ nit ñëw dugg ci pouvoir musul am liggéey xey ñu ne la mom moom ñaari immeuble yi ñun ñoko nangu lool dañ ko warul nangu ñu ne pouvoir du pour dem uti alal ku bëgg alal demal nga liggéey pouvoir jaamu réew mi la loolu paradigme boobu tank que changé wuñ ko lii day am ku ñëw nax nit ñi parce que naxaate bi lu ko indi mooy foog nga wax lu neex si nopp nit ñi pour ñu lire la foog nga wax lu neex si nopp nit ñi mais yow li yow li sa sa volonté xam nga boo demee mooy ci jot ci ci ci mbir mi uh-huh. loolu mooy problème bi moo tax nit ñi ma leen di ñaax ci loolu élection bu jotee ku nekk lu neex lay wax ku fi wax fi wax lu neex lay wax mais nag xamante nañ ci dëkk bi Sénégal dëkk bu tuuti la dama koy wax tout le temps Youssou Ndour way na ko si lees waxul uh-huh. bul yem ci wax ji rek seetal li nekk ci gannaaw wax ji uh-huh. nga nattee ko tamit nit ki jaar jaar parce que fii lañ dëkk nit ki lu muy wax tey est-ce que war na ko mën wax ñu ñu dégg n'est pas wara a gëstu bu baax parce que gis nga période bi ñu jëm. on a trop d'incertitude et c'est pas bon. dañ nekk ci ben tournant tournant bo xamné maintenant dañu nekk dëkk bo xamné pétrole da fi gaz da fi am donc enjeu bu bi gis nga dafa am ay cartel ay say say yo xamné dañu tek sen carte ont dañu maillon faible maillon faible moy dëkk nga xamné ñi ko guerre ne président de ministre yi de justice bi de force de la sécurité dem toog seen hôtel yow nga a ne sa président mooy décidé décidéwul dara tournant boobu foofu la ñu nekk te niveau ñun waruñu dem si circonstances avec de l'incertitude Il faut que ñu dem dans une attitude de base très claire avec des institutions ouvertes yu wér yoo xam ne dinañu Mais C'est tout par rapport à ñi fi nekk perspective yëpp mooy seen xel mënul jàpp beneen pouvoir ne pouvoir pour gérer affaire ressources pétrolières

au bout du compte de toute façon il a décidé mais quel est le problème yow Pape Alé wóor la ne ci telle chose xam na ko mën na la xalaatal te yaay président koo oo mu ñëw opposition bi koo oo mu ñëw soxluwu sax def publicité dans na nga waaw man de telle question yi dama bëggoon nga wax sa xalaat Pape Alé pare même bu dul sax nekk dans le jargon politique parce que xam nañ ne Pape Alé sur telle question ñëpp d'accord nañu moom moo gën a xam ñëpp waxala hmm. moom ba pare nga décider booy def noonu nit ñi xam ne vraiment yow ku ubbeeku nga yaa ngi déglu nit ñi Uh-huh. mais bés boo ne concertation mais sox soxluwu sax publicité bu koo koo ni ñëwal mu ñëw waaye su fekkee ne yow da ngay toog bu problème amee ni ñëw nit ñi ñëw sàkku dara nga ne maa bañ ñëw def ma tey uh-huh. teg ko imposé ko nit ñi waxuma sax homme politique yi kilifa diine yi kilifa aada yi problème am ñu la may ñu li nga ne maa lànk lànk carré uh-huh. beneen problème nga xëy na gars yi kaay leen mais nag nit ñi ñàkkuñu fula nag ki yor pouvoir bi war a créer condition wu kóolute ba bu wootee ñu mën a wuyu

ay kii kii nekk kii ki ko wuutu moom moom euh, beneen état d'esprit la mom moom euh, forcing la xam mais na jàpp ne loolu du wéy bu ko lolu jey ba mu yaakaar ne loolu dina wéy à force de tirer parce que la corde elle finit par se casser donc mmh. lolu na ci na ci baye xel bu baax nañ dem rek parce que euh, nañ dem nañ dem de toute façon li si kanam Dakar Matin